na ñépp ànd akuk dal bu leen kenn mën a xëcc jëme leen ci wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw bàyyil keneen muy wax wax ju ñaaw wala muy jëf jëf ju ñaaw su fekkee loola mooy jikkoom waaye yow yàlla woo jikko bi la lislaam digal mi ànd ak dal téye sa làmmiñ waxuñu de ku la saaga fayul néewuñ ko la dóor fayul bul saagaante bul dóorante bul indi lenn luy nuroog fitna jàppal sa njàmbur nga téye sa bopp soo gisee loo xam ne mënees na caa wax jàmm nga wax ca jàmm soo gisee loo xam ne mënatoo caa wax jàmm nga téye sa làmmiñ wala nga jóg foofa lii mooy waxi responsable responsable boo xam ne dafa bëgg nit ñi ànd akuk dal kon loolu dama leen koy dénk di ko dénk sama bopp ah ñi nga xam ne ñoo taxaw nag fas yéene yàq sunu borom tabaraka wa taala mi ngi fi